Euh, euh, suñu candidat wala leader. seen <laughs> candidat leader laa ko mën a woowee. ñooñu ñaar ñu ngi rëyal Sonko ak Bassirou. <laughs> man euh, est-ce que du leader leader c'est quoi ah, votre leader. c'est notre candidat. c'est votre candidat Ousmane Sonko est votre leader. Ousmane Sonko est leader du PASTEF. noo leen di gérer cas à dire euh, bien en tout cas pour man ngeen expliquer euh, tey démarche boobu naka ngeen ko fas yéene demee ci élection yi à dire euh, candidat bi xamante ni aujourd'hui xam nañ ni son mentor est là même si que bokkul tey bés bu falu jotee noo leen fas yéene gérer lu mel noonu non xam nga xam nga d'abord man bi ma laajee libération Bassirou Diomaye Faye d'ailleurs sax laajuma ko dama ne Macky Sall bu buggee montrer des signes de bonne volonté ni ñuy jox ko présomption de bonne foi dafa waroon libérer Bassirou Diomaye Faye parce que c'est un candidat j'ai pas parlé de ça dans le cadre de l'amnistie parce que sama position ci amnistie je crois que c'est ça a été très clair xam nga euh, Alpha Ali Tunkara nijaayam ki bokk ak ndey ki bokk ak ndeyam ndey ak baay moom moo woone ma ñetti bal lañ ko dóor kuy manifester yore bracelet Pastef c'est pas une balle perdue ñetti bal lañ ko dóor. Alpha Tunkara de. UGB de l'UGB. ñetti bal c'est son oncle qui m'a appelé mu wax ma xëy na mu ngi may déglu. lu ñu infiltrer manifestation yi de ay rebelles yëpp yëpp sax. ñu may ko euh, maître s'il vous mais bu amee ñuy infiltrer manifestation yi non non non non non non tontuwuma ko bu amee ñuy infiltrer manifestation yi di rey ay manifestants yoo xam ne dañoo jóg pour pour manifester kon war nañu xool fan lañ jóge parce que bu ñu bokkoon ak manifestants yi duñu leen rey ci sama xalaat dañu rey manifestants yi parce que ñoo bokk ay ay alkaati la ñuy rey parce que ñoom ñoo jàkkaarloog manifestants yi donc loolu war nañ ko càmbar mu leer xam nga euh, am na fi ay affaires yu bëri yoo xam ne xew na fi ci dossier Ousmane Sonko bi ñu accusé woon de viol et de euh, de viol répétitif et de menace de mort. Euh, nga baal ma jante balaa ngay ñëw ci loolu le cas de Alpha Tunkara moom la ñu refusé le médical wala. non après je crois qu'ils ont reçu le certificat médical. d'accord merci. ils ont reçu le médical. kenn xamagul ko rek ñu enquête. allez-y poursuivez s'il vous plaît. moom laa wax ne loolu bu amee appel à insurrection comme ni ñu waxee Ousmane Sonko bu waxee rek la lan demee yooyu am yii nii moo daan am te bu muy am ñooñ ñu ngi woon kaso ba ñu ñu jàpp ne ñoom ñoo doon indi fitna ñoom ñëpp ñu ngi woon kaso ba mais am na xam nga. te aussi bu ñuy wax ak sénégalais yi sonk Sonko man maa wax fii ne musul wax ne ku rëy ku dee sa yaay juraat. mosu koo wax léegi nag mun nga jël waxu nit ki am benn parti boo dagg génnee ko ne lii moom moo ko wax dëgg naa fi ku ne Ousmane Sonko nee na almet buy taal réew mi yor naa ko ma gis seen benn naataango toog ci benn plateau wane ne loolu ki ko wax méngoowul ak li am mu indi vidéo bi donc il faut quand même que bu ñu wax ak sénégalais yi ñu nangu wax loo am xam ne moom moo am. ku des bi rek moom. musul wax loolu. kan ah. wax loolu. wala yow. vidéo vidéo vidéo bi ñu la jox. dañ ko dagg. mais gémmiñam la génne. waaw ma ne la. vidéo bi nga am dañ koo dagg. nga jël ko di ko bàkkoo ne Ousmane Sonko léegi war ma xam nga xam nga sànq ne nga les gens ont des problèmes particuliers avec avec euh, Macky nit ki nag léeg-léeg nga def déformation de ta propre personne yow ni nga mel ak keneen noonu la imam mel ak keneen on n'a part de problème particulier avec Ousmane avec Macky ah, si li ñu am problème ak Macky Sall. dinaa ko rey li ñu am problème ak. Macky Sall li ñu am problème ak Macky Sall. fekk li ñu problème ak Macky Sall mooy guuta bu ah, mu dugal Sénégal te mënoon na ko bañ a def. Macky bu ma rey mus na xalaat ne un jour nguuram day jeex il s'est réveillé brutalement dans son rêve il non il s'est réveillé brutalement dans son xam ne léegi mu jeexal mu muy wut fu muy jafandu ba mu indi euh, amnistie proposition de loi pour amnistier te xaritam bii nee na d'accord ci muy wax affaire u. ah lu dul def rek ma d'accord affaire affaire réconciliation. sa xarit koy wax dégg waaw da wax dëgg. la da nga koy wax parce que li xew fii li xew fii te yow nga nekk un acteur de la justice di ci accuser ay nit. est-ce que am na enquête bu établir effectivement des liens ak Ousmane Sonko. lan ban enquête lan. effet yi ngay wax nii bu ko bu ko bu nañ ko àtte loolu nga wax. parce que y a parce que non procureur xam nga procureur day tuumal day tuumal nit day day topp nit il est présumé innocent mais lii kon kay moo ko wax kon kay kon kay jeex kon tey jii il dans le cadre de ses activités politiques. ah bu Macky Sall Macky Sall waxoon na fi ne bu Abdoulaye Wade di doflu dañ koy fekkee ci dañ koy fekk ji palais génnee ko par force. ay de. donc xam nga. tu ne peux pas poursuivre un acteur politique. a ko wax de. tu pour ses déclarations politiques. bon. sinon les gens vont arrêter de faire de la politique. pour ses déclarations politiques. parce que booy topp nit dafay nekk ay fait. uniquement. non ay fait ay fait ngay toppee nit. looy looy looy wax nit ki ne moom il est en association avec une entreprise de une entreprise terroriste te ana terroriste yi. mais am na éléments yu tax xanaa ñu am na. ay éléments yu xanaa procureur avant bi commencé dara. xanaa am na ay éléments yu sukkandiku au moins. ana éléments yi. dama ne toujours day am xanaa. dama ne éléments yoo xam xam nga xam nga loolu loolu mooy yoon bi mais ne est-ce que élément am na fi. dama ne man du ma wax ci dossier xaw ma ci dara dama ne procureur boo mën a gis muy muy attaque commencé benn enquête am na fu muy teg base bi en attendant ñu ñu ñu xóotal. ñu man daal gis naa ay information jante euh, su ma sukkandikoo ci say wax mooy amul benn déclaration wala wax boo xamante ni euh, war na jóge ci politicien ñu war ko ko toppee. koo xam ne dañ ko sosal. ne da nga da nga siif xale bu jigéen. loolu du wax ni. ah dañ ko sosal. te ñoom ñëpp malgré qu'il soit il était l'avocat la fu mu dem mu ne ko mu ñu koy tuddee violeur te mu ne na léegi présomption d'innocence xanaa présomption d'innocence kay war na la tere nga di accuser nit ki violeur. kan moo ko violeur. seen euh, APR Benno Bokk Yaakaar ci plateau yi. man soo paasee laa yore li jante. Benno Bokk Yaakaar. non man soo paasee Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mooy candidat te man candidat la. d' accord. man dama nekk un libre. jàpp xamoo ma naa la. je suis xam naa la. Macky Sall sama xarit moom ma. xam naa la. fii am amnistie ma ne ko d' accord ci amnistie. Ah. d' ma ne ko d' accord ci Amadou Ba. ma la doon laaj à nga man. yéen vous voulez sa libération. bi moom moom dafa intrant Ousmane Sonko laa wax ne mosul dugal liberté provisoire. Diomaye a introduit quatre à cinq demandes de liberté provisoire bu ci nekk ñu gantal ko il a demandé son avocat de ne plus introduire de demande de liberté provisoire mais c'est un candidat dama pour que nit ñi mën la prêter une présomption de bonne foi dangay def ay actes forts. comme lan. mais libérer déjà un candidat ñu xam ne yow da nga bëgg a dem ci élection c'est un acte fort. bu boobaa les sénégalais boo se dire que ah kii de mun nañu gëm li mu wax parce que lii def na ko lu rek ma gis la télé nga yërëmtalu ma ne la kii il est non c'est pas ça tu des actes quand il a commencé à libérer des gens. lu ñu déggoon sénégalais est-ce que réellement ñoom bëgg euh, Sonko ak Diomaye bëgg nañ ko parce que ñi ngi doon wax ci suuf ni am na ay médiation yu am ci suuf est-ce que ñoom nangu nañ réellement xam nga ñoo ngi doon ñoo ngi dégg ñu naan ay médiation et tout ñuy wax ñuy wax ne am na ñoo xam ne sax nee nañu Ousmane Sonko moom mooy def deal ak Macky Sall pour ñu reporter élection yi pour mu bokk bi conseil constitutionnel joxee dogalam dama ne alhamdulilah xam nga Ousmane loo ko mënta waxal mais yàlla da koy setal à chaque fois. parce que ay tuuma ay tuuma lañ ko doon wax dëmb man de dégguma Ousmane Sonko parce que kenn mënu koo gis à part ses avocats et seen seen. dëmb Macky bu ñu ko posé question bi daf ko daf ko dëggal ne effectivement waxtaan ak Ousmane Sonko pour lii ak d'ailleurs moom il ne prononce jamais le nom de Ousmane Sonko xam ndax seetlu ngeen ko du mës a tudd Ousmane Sonko. parce que bu ko may buzz bu ko parce que xam nga xam nga xam nga l'adversité politique. du moromam. l'adversité politique ce n'est pas de l'inimitié ce n'est pas de l'animosité ce n'est pas de l'inimitié ce n'est pas de l'animosité ba yow sa xol mënu laa may nga tudd nit ki. c'est pourquoi il parle de réconciliation. ku la loolu turam loolu turam ak ki nga ki nga sànni Cap Manuel euh, nëbbu ko jant bi ne kenn du ko gis. kon tey euh, jante. Euh, léegi nag Sonko bañul Sonko bañul loolu wala ñi mu àndal tey bañuñu loolu. man uh-huh. Ousmane ko mooy sama candidat. Uh-huh. wax naa ko ko y a plus d'un an ne 2024 bu ñu dem élection. mooy sa candidat wala Diomaye mooy sa candidat. déedéet dama ne ko bu ñuy dem vingt 2024 élection yoo laay jàppale. comme candidat te booba léegi ci laa nekk mu xamal ma bi ma ko félicité prison xamal ma ne moom de il garde encore intact ses droits civils et politique dina nekk candidat te il l'a fait jusqu'au bout ah du ñu wax nu ñu éliminé Ousmane Sonko kenn du ko wax du ñu éliminé Karim Wade rek la wax du ñu éliminé Ousmane Sonko kenn du ko wax dafa tegu ci yoon mais il savait la volonté de Macky Sall de l'empêcher de participer à l'élection présidentielle mu ne ma man sama jëmm ji du dara projet bi bi ma woon sénégalais moom ma ëppal solo buñ ma téyee man du tere projet bi day dem. projet lan la mu def ses stratégies. salafiste wala terroriste. xam nga. ah wane ci projet bi lan la ñu xamuñ lan wax bu ñaaw dañuy fële nit xamuñ loolu projet projet wax bu ñaaw. imam xam nga projet bi mu jëm. projet bi. wax bu ñaaw. dëkkul fu mu jëm. ah bala nga woote da nga woote xanaa xam la Ben Laden arab la. Ah, adduna bi yëpp moo koy traité terroriste doo mës a dégg arab di ko naan terroriste la te on est aussi au Sénégal. wax ju ñaaw nag dëkkul fu mu jë fu mu jëm. léegi noo leen fas mu jógee la cosaan euh, tey Diomaye du ku ñu préparé woon. ah euh, non je veux dire. depuis le début yéen ci ngeen concentré. Diomaye ci boppam Ousmane Sonko moo nekkoon candidat am. waaw waaw ma termine Dianté. mais xam nga da ngeen demoon ba ni amoo leen plan B amoo leen plan B ba Z. waaw tey dama ne bu ñu ñëwee rek la candidature de Diomaye surgit. tey est-ce que tey du ñu ne du ñu jàpp rek ne c'est un candidat par défaut wala une candidature par défaut parce que dem ngeen ba xam ni mënoo leen ñàkk candidat mm-hmm. donc comment vous allez faire ci pour c'est-à-dire Diomaye naka ngeen ko fas yéenee euh, tey booster ba nga xamante ne dina mën a yor réew mi parce que yéen loolu mooy seen bëgg-bëgg mais Diomaye il a travaillé sur le programme du PASTEF avec Ousmane Sonko il n'ignore pas du tout le programme Diomaye est un co-auteur du projet projet de PASTEF. en fait un plan B. comme ñëpp comme ñëpp ñu travail ñu liggéey ci projet boobu mën nañ nekk candidat. non c'est-à-dire je dis Ousmane. dafa dafa dafa bëggoon nekk candidat parce que moo woon sénégalais yi le projet mu xam ne nag gars yi dañ koy téye bu defoon ni Karim Wade en 2019 ak Khalifa Sall en 2019 ne man la wala du doon keneen kon du ñu am candidat mais moom mu jàpp ne. ça c'est faire preuve de générosité de faire mooy man bu ñu ma buggee téye aussi li ma woon sénégalais yi ba ñu adhéré ci mm-hmm. dinaa fexe ba am ko koo xam ne da koy yóbbu d'accord donc Bassirou Diomaye Faye ne laa la ne Ousmane Sonko moo nekkoon candidat am parce que mm. toutes les instances de PASTEF si et de la diaspora avaient choisi Ousmane Sonko ba ñu buggoon ko investir le 15 juillet Macky Sall ne c'est une provocation léegi ñoom bi ñu bëggee investir Ousmane Sonko comme candidat moo nekkoon candidat Pastef mais heureusement qu'il n'a pas été par son parti moo tax mu wut yeneen ñeneen nit yoo xam ne il a proposé à ce que ñoom également ñu déposer seen dossier de candidature au cas où on le recalerait injustement te du ci mën dara parce que les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas censées Euh, euh, de, de sont susceptibles d'aucune voie de ko waxee voie mhm. bu ko defee mu am keneen koo xam ne. merci moom mun na ko choisir te. xam nga wax ji. pour terminer s'il vous plaît pour terminer xam nga wax ji. nit wax na ma ko à Touba mu ne ma gis ci li muy bëri yëpp ñaari kandidaa dong moo fi am candidat Macky Sall ak candidat Ousmane Sonko la vérité. loolu nekkul. loolu nekkul d'accord. c'est ça la vérité. te bu ñu demee ci élection te bu ñu demee ci élection. waaw maintenant nag Pastef moo jëloon moo nekkoon troisième. ci ci ci ci élection ak 15 pour cent. waaw mais loolu. avec euh, avec le temps législative mais législative également ils ont fait leur preuve. Asou Dione ah béykat yow tamit nangu leen rek yow tamit mu ngi jàll ceeb il faut rester le monde assemblée. élection législative nu mu demee. Karim Wade bokkul Khalifa bokkul ba profité ji. élection léegi pour cent boole Khalifa ak Karim. élection législative nu mu demee. législative bi day wax intercoalition. mais Thiedo euh, maanaam Thiedo est-ce que politique. maître Pastef ne représente rien est-ce que loolu tam